maa ngi lay ziare bu baax Mbacke ak mboolem délégation bi ñu ànd ak yëpp ci jigéen ñi ak ci góor ñi ñëpp ñëw fii tey pour ndokkel la ci loolu. am nag mbégte bu baax ndax daje woon nañ daaw ci fan yi ñaanoon yàlla yàlla dimbale ñu ñu màng fan yi leer yi ba jeexal ko ci jàmm ba dajewaat loolu yàlla may nañu ko. ba ñu dajewaat fi tay ma ngi ñaan yalla mu dimbalé ñu ñu màngaan ko yenen at ci suñu kanam sëriñ bi ku neex andanga xam nga li ëpp solo ci nit ci as wala ku ñu ndax kuy jàngalé danga nga wara jar sa bop bala nga yaré ku yare danga nga war am ay qualité yu nekk ci yow ca yow ku xam luy réew wala ku xam ni àdduna tëddoo ak nu bindoo ak doomu aadama yi ni leen yàlla bindee ak soxla yu bari ci seen kaw ba àttanuñu ko façon bi ngay doxee ak di ko doxalee ak di ko jëfee ku gore nga parce ñun kat muy man ak sama moroom sama mbokk yi nii toog muy sama rakk ji ay Aysatu Njaay nga xam ne moom it dinaa ñëw ci moom léegi waaye li ma jàpp moo ñun ñii ñëpp buñ xëyee buñ jullee ba pare dañ naan yàlla ñu président xool walla mu seen ñu waaye yow wax naa ay yoon ma ne li nga def cuune walla ku gëmul yàlla mënu ko ku xam luy chef de l'État yalla wërsëgalee la du ben du ñaar yoon ngay am accès ci mom face à face 50 cm sax li dox sen digënté ci heure boko gisé nako manki ndjay man ndjay la ku goré moko mëna def nit mën na la mak nit mën na la mak ëpp lay at waaye ndëg dëg man gisaguma ko la gëna goré ndax kat ma ngi bëgg yag ci gëw bi ma ngi bëgg yag ci gëw bi ca ma ngi doxit waye nit ku goré nga ca ñun dañuy politique mbir yi xew léegoo léegi ci suuf ak tentative yi bi mu bëree sa position mosul changé ca li may wax nga di ko wax loolu moo am suñu diggante du politique téyatu ko ndax yi ñuy waxante maag yow loolu bu fekkoon politique rek la duñ fa yegg waaye maa ngi sant yàlla bi ñu yàlla wërsëgalee nga nekk nit ku gore nekk nit ku baax ku mën a sonn ci askan wi. ñëw gu daan ñëw gu Modou Ndiaye daal ñëw ci man rek ñëw na fekk fi xol yu yaatu yu ko tatagal waaye ñëw bi mu gënal ñëw yéen. man maa ko wax. maa ko ne li ñu seq ci biir te kenn du yëg kenn du xam bari na waaye dama bëgg bien soo ñëw lépp loo xamante ni doomu aadama da koy jëriñoo ci xew-xewam na nga ànd ak moom ñëw moo waral mu def yii waaye lii lu daa am naka jekk la mu koy def ci enveloppe rek maa moom ñu koy seq ngir dañuy politique doonte nag borom bis bi ku ñëpp bokk la lu ñëpp bokk la ñu Seexul Xadim dafa xam yëngu-yëngu àdduna yu nekk muy politique ñu ko def te olof yi dañuy wax teraanga bët moo waral mën a kon na ko defee nii ñëpp gis xam ne li ñu seq ñu koy def te yàlla rek tax léeg sax maa ko daan wax demal indi alfayda ndaxte alfayda ñëpp koy déglu ci Kaolack ak li ko wër su ma jëmul 2015 xaw ma 2016 tàkkusaan ñëw na sama kër ma wax ko wane ko ci politique fa ma àggoon ak Souleymane Ndéné ci jaxasoo ak coloré àggaguñ fa de waaye fa lañ suñ ko ko fekk nga ko. tey jii wees naa moom foofu fu ma àggoon ak Souleymane Ndeye rek ci politique. média yaa ngi toog ma dégg. li may wax yàlla ma gën a xam li may wax ndax ma gën a xam sama bopp. ba ma koy xam ne ñu ko fekk woon El Hadj Gorka Diallo. ci la woon. sama biir kër laa ko waxee woon. tey jii wees naa moom foofu ci kóllërante ci cofeel ci jàpp